ñu continuer suñu waxtaan ñu ngi woon ci point bi nga xamee ne mooy àq bi nga xamee ne doom ji daf ko am ci wayjuram muy àqi nàmpal ko am na benn docteur boo xam ne bu siiw lañu ñu ko Ibnu Sina ci boroom xam-xamu jullit yi la bokk nee na innahu yajibu an yurdaa ma am kanamin labani ummihi fa na fi ilqaami saddi ummihi azima nafi jiddan fi yi ma yuzihi si naa nee na xale dafa war a nàmp ak lu mu man lu jàppandi ci weenu yaayam ndax nàmp bi muy nàmp ci weenu yaayam ay anticorps lay def ci aw yaramam lor yu bari yoo xam ne war naa mën a dal xale bi eh, soow moomu muy nàmp ci weenu yaayam dafay dox digganteem ak loolu nga xam ne mënoon na koo lor kon soowum yaayam ay antikoor la ci xale bi bu ko defee kon loolu lu jar a bàyyi xel la Eh, juróom benneelu point bi itam moo di ne xale bi yaayam moo ko war a yor yaayam moo ko war a yor moo ko war a sàmm rawatina xale bi su nekkee tollee ci nekk kuy nàmp wala mu nekk parental dafa war a nekk ci loxo yaayam ndax lekk nekk boo mu nekk ci loxo yaayam mu koy nàmpal boroom xam-xam yu bari saxal nañ ne lim koy nàmpal mooy cofeel guy jóge ci moom ndey ji di dem ci moom mbëggeel guy jógee ci moom ndey ji di dem ci moom moom lay nàmpal doomam kon loolu xale bi munu koo amee feneen fudul ci ndeyam lu dul nag ñàkk pexe am ñàkk pexe moom su amee ñàkk pexe pexe la comme ni benn borom waykat waxee woon ne isal euh, euh, am na benn borom waykat bu doon wax ne euh, isa lam takun illa al asinnatu markabun fama xiilatul mutarri illaaru rukubaha su fekkoonte ne tukki dafa jot te kenn mun la tukki lu dul nga war ay xeej kon war ay xeej rek moo fi des kon féeg mi ngi mën a nekk yaay di nàmpal doom yaayam dafa war a nàmpal doomam yaay ji itam daf ko war a sàmm uuf ko ku nekk xam ne histoire yonent yàlla Moussa alayhi salaam yonent yàlla Moussa bi muy gane àdduna fekk na booba réew ma Égypte Firawna buur boo fa nekk bëggul a gis doom ju góor parce que def jàpp ne ne góor doom ju góor ji njëkk a judd rek mooy nangu ci moom nguur gi moom Firawna euh, yaay ji dem jël ko sànni ko waaye yàlla itam ci ak kàttanam ak la mu nar ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam yonent yàlla Moussa dikk ba teer si ci fi nga xamee ne mooy pale ba jabaru Firawna for ko jël ko amul woon doom mu bëgg koo def doomam te ku nekk xam ne na mënoon na koo yor waaye li nga xamee na moom la yaayam mën a def ci moom moom mënu koo def ci moom moo tax ci kàttanu borom bi tabaaraka wa taala mu jël Muusa alayhi salaam delloowaat ko yaayam ndax loolu nga xam ne kenn mënu koo amee ci kenn ku ndey yàlla defal ko ko moom yonent yàlla Muusa alayhi salaam mu wax moom borom bi tabaaraka wa taala bismillahi rahmaani rahim fa radatnaahu ila ummihi kay nu aynuha walaa tahzan dafa jël yonent yàlla Muusa delloo ko ndeyam ndax li doom di am ci ndeyam yonent yàlla Moussa am ko ci ndeyam bañ am benn njàqare euh, juróom-ñaareelu point bi nga xam ne àq la boo xam ne doom am na ko ci way juram mooy mu jàngal ko alquranul karim doom dañ ko war a jàngal alquranul karim jàngal ko li mu soxla ci xam-xamu diine jàngal ko itam li mu soxla ci xam-xamu àdduna ndax kat a li dunyaaka ka annaka taishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gadan liggéeyalal sa boroom ba mel ne suba ngay faatu liggéeyal sa àdduna itam ba mel ne doo fi jóge ba mukk ñaar yooyu nag loo ci bëgg il faut nga jàng alquran il faut nga jàng sa xam-xamu diine il faut nga jàng itam xam-xam boo xam ne ci ngay sàkkoo sa ci àdduna wabtaxi fii ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya li la yàlla jox ci kattan sàkku ci sa ad sa ëllëg sa ëllëg te ba ba pare itam bul fàtte sëb cër ci àdduna laa tashtari dunya bi uxra yaa fata moom la si Ahmad Bamba wax man baa nuurun biddu jaaf sa yen damu alquraanu karim di xam-xam bu màgg moo tax si Ahmad Bamba daf doon wax naan ci masaalikul jinaan wa afdali wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lil qur'ani summa alxadisu qaalahu daymaan gannaaw xam-xamu tawxid muy wéetal sa borom tabaraka wa taala benn xam-xam gënu la kawe xam alquranul karim xam li ci borom bi tabaraka wa taala wax si Ahmad Bamba dem na ba ne sax zikr zikr bi ci gën mooy jàng alquranul karim wa afdalu zikri kitaabullahi ma tadabburi wal intibahi ci li li gën ci li nit ki di tuddee borom bi tabaraka wa taala mooy jàng alquranul karim ba pare di ka teeylu te di ko settantal kon lu jar a bàyyi xel la si Ahmad Bamba radiallahu anhu daf daan wax naan xam-xam su dee benn na nekk alquranul karim bëgg su dee benn na nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm su dee benn gëmal borom bi tabaraka wa taala loolu mooy li nga xamee ne mooy ndigal si Ahmad Bamba radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addibu awlaakum awlaadakum ala arbai xisaalin ala salaasi xisaalin xubbu nabiyikum wa xubbu ali baytihi wa tilawatu alquran fa inna xamalat alquran fi zilli arshi llahi yowma la zilla illa ku nekk xam ne yowmal xiyaam bis bu tàng la bis bu metti la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yar leen seen njaboot gi ci ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar leen seen njaboot ci ñuy jàng alquranul karim ndaxte ñi alquran nekk ci ñoom bis bi nga xamee ne naaj bi dafay tàng jër kenn amul ker yàlla moo leen di muure ak keram fa muy muuree yonenti ak ñi mu tànn foofu la leen borom bi tabaraka wa taala di muure beneen bi itam muy way jur yi nga xamee ne dañoo jàngal seen doom yi alquran ñooñu itam yàlla am na cër bu leen séddee yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent bi nee na man qara man qara alqur'ana wa amila bihi albasa allahu walidayhi taajan yowmal qiyaama wa daw uhu ahsanu min daw i shams ku nekk xam na ne jant bii leer gi muy leer àdduna mënu koo ñàkk waaye ki nga xamee ne dafa jàng alquran te jëfee ko yowmal qiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla dana solal say wayjur mbaxana moo xam ne moo ëpp njariñ ci suuf ah moo ëpp njariñ ci suuf jant bi moo ëpp jant bi ci suuf eh, njariñ li jant bi di jariñ ci suuf mbaxana moom moo ko ëpp njariñ ci say wayjur yowmal qiyaam bu ko defee kon lool lu bàyyi lu jar a bàyyi xel la euh, alxuraan ñi ko xam dëgg-dëgg danañ fexe ba seeni doom see ab dënn ab dënn seenu dënn alxuraanu karim jiitu ca ndax su ci alxuraan jiitee dafay ubbi am xelam su ci alxuraan jiitee dafay ubbi xam-xamam kon moom moo war a jiitu ci biir dënnu jullit bi ku nekk na ko bàyyi xel yonent borom bi tabaaraka wa taala wax na ci alxuraanul karim bismillahi rahmaani rahim inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam maanaam alquran dafay gindi doomu aadama bi dafay yee doomu aadama bi dafay yaatal xelum doomu aadama bi kon su jiitoo ci xelum doomu aadama ci dond doomu aadama lu mu bëgg a man rek dana ko man ku xam daara yi ak ni ñuy doxe ak daara yi nga xamee ne dañu am meneen njàngum nasaraan xale yi nga xamee ne ñoo fa mokkal alquran su ñuy def seen enseignement primaire cycle primaire duñ ko def ci lu ëpp ñetti at lu mu bari bari ñetti at lañ koy def ñeneen ñi nga xamee ne jaar ñu ci daar yi donte dañoo jaar ci crèche yi wala ñu jaar ci préscolaire yi sax il faut ñu def cycle bi ba mu mat waaye ñu mokkal alxuraan ñi ci ëpp mën naa la wax ne quatre vingt dix pour cent ci ñoom ñett at la ñuy def seen cycle primaire bu ko defee kon loolu lu jara bàyyi xel la imam Shafii radiallahu anhu euh, daf ñuy nettali fonk gi nga xamee ne noon la mag yi fonkee woon alquran ak niñ ci daan góor góorloo moom nee na imam Shafii radiallahu anhu حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين nee na moom bi muy mokkal alquranul karim moom imam Shafii radiallahu anhu nee na booba mi ngi am juróom-ñaari at bi muy mokkal mu watta u Malik mooy téere boobu imam Malik bind nee na booba ci fukki at la toll bu ko defee kon mag ñi fonkoon nañ jàng alquran daan nañ ci jéem a dugal seeni seeni njaboot moo am na sama sama sëriñ Eh, yàlla na ko yàlla yàggal eh, sëñ Modou Maam Mbàkke Fali dafay wax naan ñun alxuraan la ñu yàlla séddee leneen lu ñu am rek bénéfice la suñu njaboot nañ jàng alxuraan ba mokkal ko bindu kaamil leneen lu leen yàlla jox rek nag bénéfice la bu ko defee kon parce que su la yàlla waxee loolu jox na la lépp lépp loo dugg rek dana dana yomb ci yow eh, juróom-ñetteelu point bi mooy mu fexe ba li nga xamee ne moom la ak njabootam di lekk. Eh, bañ a nekk dara loo xam ne nii du lu lu dagan maanaam sa njaboot fexeel ba alal ji ngay yóbbu ci sa kër di ko dépensons mu dagan sa njaboot du ñu lekk dara loo xam ne nii lu dul lu dagan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa tazaalu laa tazuulu qadama abdin yowma alqiyaamati xatta yusala an arbain an umrihi fii ma afnaahu wa an ilmihi maa amila bi wa an maalihi ay ayna ktasabahu wa fii ma anfaqahu wa an jismi fii ma ablaahu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax fexeel ba li ngay yóbbu sa kër mu nekk lu dagan fexeel ba sa doom bu mu lekk lu daganul sa soxna bi mu lekk lu daganul ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki su génnee àdduna danañ ko laaj ñeent danañ ko laaj dundam li mu dund ci àdduna ci lan la ko jeexal faw ñu laaj ko ko danañ ko laaj Euh, xam-xam bi nga xamee ne moom la ko yàlla joxoon lan la ci liggéey danañ ko laaj alal jikka yàlla dénk fan la ko jëlee ak fan la ko def danañ ko laaj yitam yaram bi nga xamee ne moom la ko yàlla joxoon yaram woowu ci lan la ko ràppal ci lan la doon liggéey bu ko defee kon loolu comme que faw ñu laaj ko doomu aadama bi doomu aadama bi war nay góor góorlu war nay góor góorlu ba doomam euh, xam nan lay sakkoolu dagan xam doomam xam itam la am fan la koy def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax saadu bun abi waqaas saadu bun abi waqaas bokk na ci saxaaba yi nga xamee ne euh, yonent bi dikk na leen lu bari yowmal qiyaam saadu boobu daf nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax naka atib mataamaka tujib daawataka maanaam soo bëggee da gis léeg-léeg ñu bari dañuy wax naan ijaaba dafa jafe léegi maanaam ñaan yàlla mu nangu dafa jafe léegi maanaam la tax mu jafe mooy yàlla gee bari rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam na saad bun abi waqaas ne ko na nga fexe ba li ngay lekk nekk lu dagan soo lekkee lu dagan rek loo ñaan yàlla dana ko nangu bu ko defee kon loolu lu jara bàyyi xel la euh, juróom-ñeent point bi nag mooy doom dañ ko war a jàngal julli bi mu nekkee xale nga koy jàngal julli yaa borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim wa mur ahlaka bis salaati wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka wala aqibatu lil muttaqin sak njaboot dee leen digal ñuy julli dee leen digal itam ñu fonk julli ndaxte ñun ku am wërsëg ñoo la ko jox te itam ku am mujj gu rafet borom bee la ko jox ku am wërsëg yàllaa la ko jox ku am mujj gu rafet yàllaa la ko jox yàlla li mu sàkku ci yow mooy sak njaboot dee leen digal ñuy julli ndaxte julli dafa nekk benn ci ponk lislaam yi julli benn la ci ponk lislaam yi euh, ponk bi ci njëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bi ci topp mooy seede ne amul benn buur bu dul yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam yonent yàlla la bokk na ca ponk ya maanaam juróomi ponk yi bokk na ca ponk yi mooy taxawal julli te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ne alsalaatu imaamu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin julli nee na mooy li nga xamee ne mooy yenu diine ji di diiney lislaam képp koo xam ne nii taxawal nga ko taxawal nga diine képp koo xam ne màbb nga ko màbb nga diine moo tax sa doom da ko war a teel a jàngal julli jëlee nañ ci xadis boo xam ne ahmad ak abu daawud ñoo ko nettali jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne murru abnaakum bis salaati li sab'in wadribuhum alayha li ashrin wa farriqu baynahum fil madaaji'i nee na seen doom yi ku ci am juróom-ñaari at xam ngeen ku ne xam na ne doom li ci ëpp ñu ci ab juróom-ñaari at la ñuy dugal seen doom yi école ni ngay fonke sa doom dugal ko école suy dem di jàng lépp lu war ci moom nga def ko su doom ji amee juróom-ñaari at noonu nga war a fonke noon nga war a defee sa yitte ci jàngal ko julli su demee ba am fukki at nag su julliwul nga duma ko loolu mooy teg digalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku nekk da cee war a góorlu bu ko defee kon ñu bàyyi ko xel bokk na ci nag ni ñuy jàngalee xale yi julli sooy dem ca jàkka ja àndal ak sa doom sooy julli ji tabaski gi àndal ak sa doom sooy julli ji korite àndal ak sa doom sooy dem itam ci fépp foo xam ne da ngaa bëgg sa doom fonk ko ci mbirum diine da nga fa yóbbu wàlla sa doom ndaxte xale bokk na ci ni muy jàngee parce que dafa am méthode yoo xam ne moom la ñuy jàngalee bokk na ci méthode yi ñuy jàngalee mooy at taqliid roy roy ku nekk xam na ne xale suy su dox kenn du ko wax na defal nii pour dox maanaam dafay roy ñiy dox di jóg di daanu al muhaawala wal xata moom lañ tuddee njàngale an tariqil muhaawala wal xata di roy di échec di roy di réussir ba ba ngay man li nga xamee ne moom ngay def naka noonu nag xale noonu lañ koy jàngalee diine deel ànd ak moom sooy dem ca jàkka ja dooy ànd ak moom sooy julli ci julli mbooloo muy roy di gis ni ngay def di gis ni jullit yi di def bu màggee ak loolu kenn du ko wax nag kenn du ko soññ na ko jógal julli bu ko defee kon loolu lu jara bàyyi xel la euh, fukkeelu point bi nga xamee ne ci laay tëjee sama waxtaan euh, mooy jàngalal xale bi euh, woor jàngalal xale bi woor ndax woor itam ci li ñu war a jàngal xale bi la doonte nag du farata ci xale ndax xale bi balaa koor war ci moom mu majeur waaye nag sopp nañ ci xale bi nga nga di ko entraîner di ko jàngal woor te loolu itam sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, saxal na loolu am na benn xadis boo xam ne buxaari moo ko génne ak muslim ñooñu ko nettali jëlee ko ca rabi bintu muawaz xadis boobule euh, rabi bintu muawaz dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bisu ashura mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit ci suba gi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yónnee woon ci waa ansar bi yonent ci waa ansaar lan la leen wax moom yonent bi dafa wax ne man kaana saiman fal yutimma sawmahu wa man kaana muftiran fal yasum baqiyata yawmihi fa kunna nasuumuhu baada dalika wa nusawwimu sibyaanana as-sigaar loolu moo tax ma wax hadis bi nee na rabia nee na yonent bi ci bisu asura ci suba gi dafa am ñu mu yónni woon ci waa ansaar ne leen bis bii nga xam ne mooy bisu asura képp koo xam ne fekkoon na la nga woor na nga continuer koor gi ku wooroon te dog na nga wooraat li des ci bis bi ku wóorul woon itam wooral li des ci bis bi rabia ne bis ba bis booba passé ba tey nee na su bisu asura ñëwee dañ koy woor di ko woorloo suñu doom yi te suñuy dem ca jàkka ya dañ daan ànd ak suñu doom yi même xale yu ndaw yi dañ leen daan yóbbaale ci jàkka ya nee na am na ci ñoo xam ne eh, benn benn yoo xam ne ñemewuñu xiif mais suñu xiifee ñu jox lekk ñi nga xamee ne ñoom ñoo xiif tey te duñ ca duñ ca boole keneen bu ko defee kon ñu xam ne koor lu war a jar a bàyyi xel la lu jullit bi war a def la euh, fii la ñuy yemale suñu waxtaan euh, di euh, fàttali rek loo xam ne nii mooy ndigalal sëriñ bi Cheikh Mahamadul Muntaqa radiallahu anhu yal na yàlla yokk leeram gën a guddal aw fanam nim ñuy soññee ci lii nga xam ne moom mooy xew ci jamono muy feebar bii ci lépp loo xam ne nii docteur yi ñu ngi koy digle rek ci war a jël maskak sore bi ñu war a def ak yooyu yëpp rek ñu ñu ñu góorgóorlu ci allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman kasiran rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran